أتنا ah, di wax ni ñu ngi ci barab bu sell barab bu tedd barab bu yaakaaru ah li tax ñu daje fi tamit ñu ngi ñaan lépp di taw tawfiix di ngëneel te yàggal fi Sëriñ Ahmadul Muntaqa mi nga xam ne mooy xalifa général di murit kon li ngeen bëgg a xam ci liggéeyu teen bi lenn rek la mooy nii mbooloo mu sëriñ bi liggéeyloo ci barab bii te lan leen koy liggéeyloo mooy fexe ba Euh, doomu aadama yi nga xam ne ñëw nañ fi ngir soxna jaara la la fi soxna jaara bàyyi woon ñu di ko barkeeloo ngir moom loola ñu man leen ko jàpp ndaral loolu nag du dara lu siyaar ko fee mu tëdd barkeelu ci desit ndoxam bi nga xam ne ci la doon liggéeyal boromam kon loolu mooy barkeeb ndox mi ndox mi nag ndox la moo xam ndox ndoxam barkeelu la niñ koy faral di waxee ni kenn sañu koo jël di la wax naan la day faj nangam day day nangam waaye kenn ku nekk faj na ci aajoom joo xam ne bokkut ak ju ci moroomam lépp nag ci coobare sunu borom subhanahu wa taala loolu daal bokk na ci eh, eh, njëriñul teen bi. su ko defee ndox mi tamit am na tuuti muskila yoo xam ne dana ci faral de am ndax am na sunu mbokk yoo xam ne dañu nekk ci biti root seen ndox ca kër ga ah, rax ci dara ba mu xaw a nax ñu la koy jaay ni ndoxam teen bi lan lay jaay ngir ñu mënta àgg di fa àgg waaye ku yàlla dogal nga mën a àgg daal àgg gi ci si teen bi mooy ndox mi wér. ndax soxna su tedd su doon liggéeyal boromam moom moo ko fi doon eh, moo moo fi nekkoon di fi jaamu boromam des itam woowee nag moom mooy ngëneel li nga xam ne moom la ñuy topp jeex itam comme nañuy toppee samsam sam ca màkkatal mu karama kon fii tamit noonu lañ fiy toppee soxna jaara ci ndox mi loolu daal moo ci ngëneel ci li nga xam ne moom nañu ñu mën a xam di ñëw tey ci bisub soxna jaara Buso bi di am mbégte nag ak kontante rek kër ci bis bi rek di ñaan ci yàlla lépp loo xamante ni rek borom borom bis bi sonn na ko fi ñu ñëw rek ngir di ci barkeelu yàlla nañ ci am lu kawe suñu njort. tey nga ñëwoon ci teen bi teen bi bokk ci bërëbu ziyaar yi tey bi nga ñëwee tey ji lan lan nga yëg dëgg-dëgg ci jëf ji nga xam ne nii tey ñu ngi koy barkeelu soxna Jaara. xanaa am mbégte ak kontaante bu ma yeboon ni sept ba réegi maa ngi ngir aski ci teen bi am ci ndox mi ñaanuma kenn damaa topp rang bi ba aski fii rek ngir xam ne rek borom bis bi tey ji li mu def ba am lii képp koo xamante ne nii bëgg nga cee jariñu bu doon ñaari minutes yi des di ko fi sonn kon dañuy ñaan ci yàlla rek di ñaanal bépp jullit yal na yàlla yu guddal fan yi yokku xéewali di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg. nag di doole góorgóorlu di santaan yàlla bu baax te képp ku mu man di doon ngay jigéen dugg ci barabu sëy war ngaa sàkku sa ngërëmul borom kër sabablu bu baax a baax a baax a baax ba lépp loo fa am yàlla may la ci lu kawe sa njortu barkeelal sa njaboot. waaye lépp rek liggéey ak nungu kilifteef moo ñu koy may kon ñun soxna yi nañu dollee góorgóorlu te xam ne ni kum ci man di doon rek yàlla may la borom kër du sam nawle na nga ko topp jaamu ko te yàlla tax bu ko defee lépp loo fa am rek di nga ci am barke am ci lu kayo sa njot ci barke Muhammad